mbir mu bees la télé bu bees moo ñëw ñëw ñëwin wu bees ci jotaay bi damay faral di wax ne alquran ñun sénégalais yi dañoo favorise ñaari sunna ci kawam ci ñaari farata euh, farata yi njàng mu wér mi jëfe gi sunna yi mooy mokkal lépp neexal ca baat noonu nag mokkal lépp ak neexal baat gi daa mel ni léeg moom lañ gën a favorise ci wéral geeg jëfe gi danaa ci dolli leneen mooy mhm. adamu ishbaa al muduudi wa adam taswitiha mutlaqan mhm. muduud yi dafa gàtt sax moom far. moom mm-hmm. matut. Mm-hmm. te li muy ñàkk a mat da cee boole ak ñàkk a tolloo bool bëgg neen mu ñaari ñaari sikk ci biir bu si. Mm-hmm. beneen bi mooy mataran jooju. dafa tafxim miim gi. dafa wax moo. te maa yujad fi quraan yi moo. ma mu am ma too. ab too. ñu dañ koy dañ koy def itibaax. tafxim ko jum ñu di wax too. too amul. moom ñi lay natt sax bu ñu toogoon jàng ñu am lu ñu mën a seet. seenum njàng waxi mag la waaw. alquran waxi maga wallahi moo tax kenn du ci nekk mag mi ngi noonu moom daal mooy loo xamante ni daal eh. foo ko jàngee def ci naka su dul noonu rek gone gu ndaw ñeme naa taxaw ne li nga def du noonu ndax moomoo ko mhm. te itam bu ñuy taxawlee la ñoom ci haa mhm. dañuy taxaw bi kayfiyatin daifa jiddan mhm. masalan a ilahum maa allah loolu a ilahum maa allah est bañ xam ne ngaa taxaw ci xaa mm-hmm. loolu moom feeñ ci am njàngam dafa am att bu ñuy wax xalqala ci mm-hmm. alquran mm-hmm. mooy dafa am xaraf yoo xam te ne buñ koy jàng dañ koy xóotal mel ni qaaf ta ba jiim daal waaye dañuy gis ni waaw dañuy gis ni nag moom daf cay xaw a boole yeneen araf yoo xam te ne bokk ci lu mel ni comme xarfu xaa alhamdulilahi rabbil alamin sañ nga ko alhamdulilahi rabbil aalamiin sañ nga ko mhm. mais boo ko see tàmbalee noonu mhm. <laughs> boo ko changé am loolu tam feeñ ñu ci am njàng am na ci baat boo xamante ni mooy antum bitu mhm. daanaka da koo xaw a jegeel too ñoo bokk fu ñuy génnee waaye nag ay seeni melokaan waaw seen i melokaan bokkul waaw donc kenn du jàng am itbaq naam te bee amu ko bee amu ko kon loolu na ci bàyyi xel bu baax waaye ñu koy wax mu góor góorgóorlu ci yoon wi mu jàpp bu jàpp gën a gën a wéralum jàngal ndax lii am na ci solo trop baarakallah baarakallah fiikum jazakumullah xeyran kii yaa ngi la kon man xam naa bi ma ciy dolli rek mooy baatu alhamdu bari na ñu ko ci wax ndu moom amul ci arab nda ndi ndu amul ci arab du da di du moo ci am donc lu mel noonu mën na am feeñ na lu mel ni ayin tamit bari na ñoo xamante ni si maxtaar buñ koy jàng dafa mel dañoo dolli miqdaar euh, xaraf yi mm-hmm. yaa la ñoo wax ñu ni yaa